mel ni fan yee gis ngeen li nga xamante ni jot na fi xew mais bari na lu loo def keroog ñëw fii wasaare fekkoo ma fi mais nga attaqué sëriñ su bare bare bare dafa mel ni attaque boobu nga leen attaqué euh, mujj na laa jural ay coow wala yu mel noonu euh, ñu ngi lay woo ñu ngi lay menacé ñu ngi lay wax loolu nan nga ci mën a wax ak lan nga leen waxoon ba waral ñu attaqué la waaw ñun dañuy sant yàlla bu baax ci loolu euh, man duuma ku ragal duuma ko ragal làmbatuuma jéemuma te lepp lu def itam ci kàttanu yalla luma man la luma ñime la luma gëm la waaw ragaluma len ñom serigne soo ñom ñom ñom ñima doon wo ñom ñep amul kenn ko xamanteni ragal na la wala mang lay baye xel waaw parce que euh, man bi manam limay def ni luma suñu borom di def lola lima man ni suñu borom momako man lo kon amul lenn lu ma leen ragal wala lu ma si dellu ginnaaw li ma bu fekke deug lañu bañ billahi la wat billahi fi la ko waxe lol amul lenn lu ma ciy dellu ginnaaw. nga wax ban deug nga len wax. wax dama ne len lepp lu ñuy def nañ ci set seen diggante seen borom affaire jubadi yi ñi def ni ñu bayiko nit bu ñew ci yeen seq ak yéen liggéey li ko mate. mais nit day wax ak yéen ba pare ba tënk ngeen na ko man ngeen mais lu mu tënk ak yéen su ngeen paree yéen di ngeen di jël xaalisam tëdd si hmm. wala la ngeen ko waxoon du ci gis dara hmm. man maa leen wax loolu ñu wàññi seen caaxaan yi parce que li ñu nekkee du dëgg du yoon parce que gisuñu ku leen wax dëgg moo tax ñuy def lu leen neex hmm. dañ war a arrêté yi ñuy def yaa ngi dégg parce dañ dépassé foo xamante ni affaire ñu njaaj la nit doomu adama yaakar na ne ci lepp lo nek rek jital ci ngor ak dugg ak njub wallahi nit yi boko jitalé sa adina li ngay wax nga tek ko ci xam-xam li ngay def nga mën ko ding ci démé xel mu dal yi ni bokay démé rek xel mu dal ngay démé fu la neex mën nga fa dugg mais seen jubadi ak seen ñime wax amul motax ko koo ci gis mu ngeek ay garde corps koo ci gis nangu la circuler euh, ci mbedd bi. ñoom sëriñ koo ci gis mu ngi garde corps ndax lan mu ngi sóoraale ne moom su génnee mën na daje nit mu dóor ko te loolu lan moo ko yóbbee ak juba dem ni da ngay jub seet yàlla tuuti ci la ngay def mais sëriñ yi dañu ñeme yàlla ñeme yàlla ba nga xamante ni lépp loo leen wax mën nañ ko loo leen wax ci kaw suuf mën nañ ko boo ne leen sax nit ku dee sax mën nga koo dekkil sax ñu la waaw ñi yàlla ñi yàlla goo xamante ni kenn mënu wax lii lan la te ku la ci gën a ñime càng bëgg càng bëgg daraja te dara nekku ci seen bopp yi dara te balaa balaa ma dee dangay gis kuy ñëw toog sama maam moo fi def lii sama maam mooy diw alors léegi yow sa maam moom dafa jëf ba jugee fi hmm. yow léegi boo ñëwee loo moom li mu yoroon noonu yow nga koy mottali yow jëfalu sa maam jëful mais bul toog naan sama maam sama maam te mënoo jëf lu sama maam jëful amul sens yéen ngi dégg li ñuy def nañ ko arrêté nañ arrêté li ñuy def ñu seet yàlla tuuti ci li ñuy dem waaw bu dee man nag kantaa man mii benn man lijjantuwuma leen bàyyiwuma leen xel sax du ay wax mbir mi du ay wax entre sëriñ sëriñ du ay wax bu dee lu ngeen man la loolu dañ koy may si baatin yaa ngi dégg ku nekk la nga mën nga def ko sa morom te na pat bàyyi woote man loolu laa gëm. ki woo téléphone lu mu lay bu doon kenn la sax mën naa wax mais def ci bari. di ma ci woo di ma menacer naan man waaw yow yow xamoo dara da ngaa yabaate mais boo moytul naa la yónnee jinne bi mu def la lii naa yónnee li mu def la lii man duma la tontu xam lu ma la si njëkk tegal bu ma pare. dama na laan billaahi laa la waatal su fekkee wóolu nga la ngay def wala gëm nga li ngay def ah nañ dajee ci bërëb taal wala nañ fekkante ci temps bu fekkee yow yaa ma mën si lii wala lii nga mën si man def ko parce que man bu dee man si ñoom balaa ñu maa laal il faut ñu mën a affronter dëmm ba pare ñoom sëriñ si ñemewuñ dëmm parce que dañuy gis nit feebaru dëmm jàpp ko sax mais dañ koy ragal a wax ku ñemewul affronter dëmm man mënuma affronter parce que man man dëmm ñemewuma man hmm. waaw parce que man dëmm moom ñemewuma ñemewuma de waaw yow ku jim dëmm ñemewul te yow nga ragal dëmm nga ne ko nga bëgg affronter doo indil sa bopp musiba hmm? li ma leen di wax man nee naa leen man du ma marabu yooyu noonu benn li ngeen gëm gëmuma ko li ngeen jiital jiitaluma ko man mbirum àddina dara nekku ci man man mbirum àddina amul lenn loo xamante ni nekk na ci man man li ma yiteel lenn la rek sant yàlla parce que dama gëm ne man li ne si man suñ borom moo ko def ci man moo tax damay jël loolu lépp di ko sante parce que ku la daggal waaru yaatu waaru xéewal mën naa ne bu doomu aadama yi ñëwul sax lépp aajo bu mu bëgg a faj si kàttun yàlla yàlla mën na maa indil xéewal parce que moo ma daggal waar woowu bépp soxla bu mu am dina mu indil xéewal goo xam ne mën naa faj kantaan nit kon kooku yow man dama koy sant ba mu jeex man sama lépp suñu borom la sama lépp suñu borom la amul lenn loo xamante ni wéeku naa ko seet leneen lu may suñu borom parce que li ma defal la man.